mercredi passé mm-hmm. on a parlé de crise mm-hmm. institutionnelle institutionnelle absolument ci li xew yëpp mm-hmm. ak situation Bien bien que ait une amélioration bi procureur activer dossier bi dossier nous vers une information judiciaire mais quand même bi y nekk une crise institutionnelle bi a gis entre les bi judiciaires. bi problème yi et tout

décision boo mënti jël. Mm-hmm. ñëpp ànd ci. Mm-hmm. mais tey ñun ñëpp ku waxal yàlla xam ne conseil constitutionnel décision bu mënti jël ak nu mu mën demee. kenn du ci ànd. kenn du ci ànd. Uh-huh. te loolu bu amee day indi crise mm-hmm. moo tax ñu waxoon ne dañu nekkoon ci crise institutionnelle. mais fi ñu jëm nii nag ak li ñu gisagum ci crise politique lañ jëm. mais mais la différence entre euh, crise institutionnelle ak crise politique ban mo gëna graw garaaw bu ñu la déggee ni nga waxé wa xam nga crise institutionnelle. hmm institution yi ñoom seen biir la. seen biir la. hmm mu am ay ay ay ay ay bànqaas yoo xamante ne. Hmm. dañuy xuloo seen biir. di hmm. créer ay obstacle hmm mais bi nag ci biir yoyu da fay am yéenu si judduwaale. ok moy parti politique yi moy soulèvement yi moy tension bi. moy hmm. ñi d'accord li ak ñi d'accordul hmm parce que ku waxal yalla xamné tey ci rapportu élection yi am na ñu d' accord. ñu d'accord accord ak ñu d'accord accord. Mm-hmm. am na ñu nekk ci biir nguur gi. Mm-hmm. ñu àndandoo ak ay nit. ñi d'accord ñi d'accord ñi d'accord ñii d' dëgg la. so ñëwee ci biir opposition bi aussi am na ñu d'accord. accord am ñu. ñu d'accord à tous les niveaux. maintenant yooyu nag bu juddoo si ñi nga xamante ni ñooy principaux acteurs yi. c' est les mm-hmm. acteurs politiques mais bu andek maintenant ak crise bi ñu dund avec nouveau institutionnel day créer crise politique te crise politique mooy gën a yaatu. lépp lay ëmbandoo. dina indi soulèvement. dina indi tension. dina indi instabilité dans ce pays. dina jur rien ak yeneen à yeneen. et c'est ça à un certain niveau qu'il faut éviter. mais quand on da nga bëgg wax crise institutionnelle bi mooy indi crise politique. mooy indi crise politique bi. ok les crises politiques bi yow yow noo ko circonscrire. pour yow kenn du wóolu kenn. ok tey décision bu ñu mënti jël wala lu ñu mënti waxtaan. ña ca àndu lañ ñaan ànduñu si. ça tey décision boo mënti jël day arrangé ku mu arrangé wul rek day jóg taxaw. ok je donne un exemple. Mhm. tey amnistie bi tey bu fekkoon dañ koy def yow leer na la leer na la dina am soulèvement bu garaaw si yoo xamante ni ne moo fi am. man ne maa koy jiite soulèvement ba. <laughs> te am na ñoo xamante ni tey pour jàmm réew mi tamit soxla nañ ko. soxla nañu lan lu ñuy soxla. non soxla nañu sax pour am amnistie sans sans tenir compte si yenn aspects yi. Mhm. donc pour on actuellement. nous sommes ci confusion. mais confusion quand on va entretenir c'est c'est c'est en premier voilà voilà voilà c'est ça. Ça, c'est Macky. C'est lui qui est en train de jouer là. C'est Macky, non, pas aujourd'hui. Il a de jouer. Ce jeu, c'est pas aujourd'hui. Quelqu'un a commencé C'est depuis 2012, depuis que a quitté le pouvoir. Il faut quoi, Macky Si le suis Ablaï Wad, je fais ce Là, attention. Mm. Un pouvoir ne se gère pas comme ça. Mm. Abdou Diouf mënul dem Abdoulaye Wade gunge ko. bu rafet yónni ko waale francophonie. mu rafet Sénégal yi rafet ko. yow nga jël nguur gi di xagal ki nga xamanteni ni ne tey. la nga am yeb gëna yalla ak yonent bi yow yaa tax. mu mettre en place une juridiction d'exception qui s'appelle la CREI. instaurer l'instabilité dans ce pays. à tous les niveaux changer carte d'identité yi changer processus électoral bi. changer yeb changer yeb pour ses propres intérêts. bu ñu à ce niveau. ba pare tamit ngay taxaw à chaque fois qu'il y a un leader qui est là de l'opposition. au lieu de renforcer au lieu de faire nourrir notre démocratie tu cherches à les poignarder. ce mm-hmm. loolu baaxul ci. ci la mm-hmm. démocratie réew dafay soxla de grands opposants mm-hmm. mais bu fekkee boo des benn opposant bu am doole rek. nga bëgg faagagal loolu day jur instabilité dans ce pays. donc li am yëpp c'est d'abord abord ci moom la jógee. indi situation bi ñu un ay changement carte d'identité le processus électoral bi. chaque jour ñu avons mais nous avons aussi une opposition unie autour des questions légitimes ok mais mais pour pourquoi. Euh, parce que ku nekk da nga bëgg sa ok à un moment donné dans un pays sur des questions légitimes dañuy toog waxtaanee ko am kenn ko comme ce qui s'est passé en 2023 comme ni mm-hmm. COS 23 di tuddoo nii. Mm-hmm. nga autant sur des questions aussi légitimes. Mm-hmm. kenn ku nekk doowul xool boppam. mu am de consensus. mu am benn consensus autour ñu ñëw taxaw xeexandoo ko amandoo ndam ku nekk ñu dem ñu dem maintenant compétir. ku gagné ñu xam ne yooyu nag malheureusement. moo amatul amul amul cette position amoul ça n'existe pas moo tax ngay gis ces alliances et ces désalliances mm-hmm. nga gisaat encore ñen ñoo xamante ne and ñu xëy suba àndaat mm-hmm. parce que ñom ñaar ñu bokk na même intérêt mm-hmm. donc li lay jur mais wa wa wa moom rek moy point noir wa loolu xawa a yàq nga kaas seen nit sax ne ah yow moom moom kaas yi muy kaas si kaw non Sonko nañ ko war a bàyyi ko da ko waroon dox ci souf kon pour yow diplomatique ci souf dafa am leneen lu muy dafa am yooyu duñ ko bañ. mais lu war a dox ci suuf non c'est-à-dire dina xool ne réew mi toll na situation moom ci dafay soxla médiateur. Mm-hmm. tu ne peux pas être du côté de quelqu'un et être médiateur. absolument. parfois c'est ça c'est ça c'est pas quand on est de la société civile d'accord mën nga ne ah président mm-hmm. man kat gis naa ne diw mii war nga def lii mm-hmm. diw mii war nga def non non non yéen aussi il faut ngeen defee nii il faut ngeen taxawee nii loolu bu amul booy waxee dañ naan non kii il parle

taxawaay bi nga xamante ni moom la Alioune waron taxaw lool rek moy problème bi de mën na nak dox parce que réew mi parfois dina toll situation yoo xamante da kay soxla te mës naa ko wax Sonko nee ko pense à Ablaye Wade parce que Ablaye Wade mii dafa don exemple même ni nga ko mënti tuumaal dafa doon exemple lu bëri ci réew mi Ablaye Wade pendant des périodes les plus difficiles il négocier avec Abdou Diouf et il quittait ce pays il ne le fait pas pour l'or, il le fait pour sauvegarder notre économie et notre stabilité sociale. parce que yenn saa si vous êtes un leader di nga que ne ah lii boo xuusee mu jur dara ci réew mi. nga reculer dem compromis te compromis yooyu à un moment donné. Wade de ko un def te ce ni nous ko doon wax Sonko nous ko Sonko parfois dañ def compromis parce qu'on ne sait jamais on est en face de toi un état on est ici. tu comprends mais parfois dafay am ñeneen ñoo xamante ni ne ñoo lay dugal ci benn guuta boo xamante ne yow pour yow pour nga génn sax. Mhm. yenn saa yi c'est un problème. Mhm. d'accord mais société civile bi dafa am ñaari façon. ban ak ban. am na ñu xamante ni ne li ñuy def dañ koy def pour l'intérêt du pays. Mhm. d'autres ils le font pour l'intérêt de leur bailleur de fonds. léegi kan mooy kan léegi kan kan mooy kan. <laughs> tu comprends. parce que nous avons, parce que dama lay des financés, USAID des financé. Mm-hmm. Union européenne ci élection des financé. Mm-hmm. ñen ak ñen dañuy financé. Oxfam aussi wa ñoo ñëpp dañuy contribuer. Mm-hmm. déjà par des ONG pour nous jouer un rôle de supervision ci élection yi. ñooñu est-ce que tay bu réew mi doon tak wala situation réew mi toll fenn. ils seront toujours du côté il faut pas reporter. Parce qu'ils ont le crédibilité à conserver mhm. vis-à-vis de ces Mais vis-à-vis de ces bailleurs. Mais ils ne le font pas pour l'intérêt de ce pays. Lolo motax attaqué mhm. élection. ils ne le font pas pour la stabilité du pays. Ils, le font ne le font pour qu'on aille vers des élections à quel que soit alpha. Mhm. Mais nous nous tok mu neex Nous nous, 25 bi nous, def élection nga Situation il faudrait que maintenant que nous nous disions comment il faut redresser la barre. d'accord.